taalibe yi noo ngi ñaanal Cheikh Sidil Makhtar Mbacké mu yàgg loolu te wér gis ngeen nag départ nañu Libreville noo ngi jëm Port Santi fii may wax ak yéen maa ngi ci bato bi ak Cheikh Mamadou Bachir mu Serigne Abdoul Khadir Serigne Mahmadan Mbacké mu Cheikh Abdoulaye Lahad sëñ Cheikh Baara lay mu Cheikh Sidil Makhtar Serigne ba sëñ Cheikh Baara mu Cheikh Abdoul mu Cheikh Mamadou Lamine Baara ak yoon wi yëpp ak seex yi yëpp ñëpp a ngi ci biir waaye tey dana am lu ma leen leeral ci bato bi nu dugg yàlla fay na Serigne tubaa tey bato bi waa kër Serigne Touba képp ñoo ko fees kenn raxu leen dañ ko luye noo nga jëm Port Santi waaye kii dawal bato bi capitaine bato bi taalibe Serigne Bamba la da wa euh, sëñ Massamba Diop Sam la yaakaar xoolal loolu rek mi ngi ci cabine bi di dawal ñu jël bato bi yàlla fay na Serigne Touba bato bii nu dugg tey njabootam dugg ci ab taalibeem di ko dawal di ko dawal te ba mu ñëw fii bato bi mu dugg moom képp kott dong moo ci ne ay nasaraan di ko dawal kon yàlla fay na Xaadimu Rasuul kon noo ngi ñaanal Cheikh Sidil Maxtaar yàlla sama borom guddal fanam te may ko wér borom nganna borom guy mbind borom Mbàkke Kajoor lii lépp ci ayam la كون نوغي نانال شيخ سيد المختار مو ياغ لول تي ويل واي نوغي نانال شيخ محمد البشير مو سيرن عبد القادر يالا سام بروم كودال فرام تا ماي كو وير جيغو يي مو دوخ جيغو سيرن توبا لا جيغو بايم بو باخ بالا شيخ محمد المرسلا واي جيغو ماغام تو باخ جالا سيرن مامور مباكي ابن شيخ محمد المرتلا غور يالا مومي تام جامبار جوجلي كون تاي جابوتو سيرن بامبا نيغي سي بير باتو بي tey ñoo nga jëm Port Gentil fa fanweeri minute nu gaare waaye taalibeem sëñ Bamba mooy bu gaal gi moo koy dawal kon yàlla fay na xaadima laa ilaaha illallah Port Gentil gis ngeen taalibe yi gis ngeen ni ñu ko teeroo sëriñ daa ngi génn si àndante ak délégation bépp àndante waa kër Xaadimu Rasuul yëpp yàlla fay na Xaadimal Moustapha moo tax tey doomam ju baax ji Cheikh Sidil Maxtaar xalif général kullu murid noo ngi ñaan yàlla guddal fanam te may ko wér Cheikh Mamadou Bassir mi ngi génn dégg nga waa kër Cheikh Modou Kara généralu Xaadimu Rasuul dégg ngeen waa këram yi. sànni matt mu tag teeru bi kenn musu koo gis tey ñu ngi teeroo Cheikh Mamadou Bachir Serigne Cheikh Gaynde Fatma mu Serigne Moustapha Bachir mooy jàll noonu Serigne Djili Niang ndeysaan sëriñ baa ngi jëm si Mbakke yaaram sëriñ Abo Mbakke Mbakke Mbakke Mbakke gis nga ambassadeur génn na ambassadeur génn na sol jëfu Njaay Sekk Abdoul Basir génn na Moussa Khadir génn gis ngeen mbooloo mi Cheikh Mamadou Bassir génn na Cheikh Abdou Khadir Mbacké yi li maa ngi feeg boole gee ndeysaan sëriñ bi génn si na mbooloo maa ngi ko topp mbooloo maa ngi ko topp génn si na dox na wut si na oto bi nag wut si na oto bi. ma nga jëm sa oto ba xaadim nit ñi daanu ñi ngi yuuxu mu julli bi la ba sa ndar maama mu julli si géej maama mu julli njuule julli na lambar na julli na foof sant julli na gara gara Bamba ndeysaan jërëjëf Serigne Touba a walam yakun lahu kufuwan Bamba moo ko signé woon biro Basamba jërëjëf Serigne Touba walam yakun

من العلم لجاسد بسرين توبة مرسي بسرين توبة درجة بسرين توبة مرسي بسرين توبة درجة بسرين توبة كيف كيف كيف a a l a. bad. السلام عليكم أنت المعيد الذي أطيب به دنيا وأخرى لعود مولانا أنت المعيد الذي حق البقاء به دنيا وأخرى للعلى مولانا بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للمنتقى وجهت في كبل بسا ما قد كفاني عدوا حبسا إلى النبي وجهت في كبل بسا ما قد كفاني عدوا حبسا نيجي نيجي nuyu ñëpp di ci turu ak ci ndigalal cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikhi Abdul Qadir di leen ndokkeel bu baax di sant yàlla bu ngeen gisee ma ubbee bayit yooyu mooy damaa bëgg ñun ñëpp ñu maase teewlu béréb bii ak euh, xaal xaal xaal ji lisaanu xaal jii nga xam ne béréb bi mi ngi koy wax ak ñun góor yàlla cheikh Mouhamadul Murtada bi mu njëkkee ñëw fii fi Kabla Bisa fii ñu nekk nii ñuy wax naan sëñ bi fee la wàccoon ak fii la wàccoon dafa ne waaw moom de loolu amul solo li am solo mooy ginnaaw jaww ji ñu tiim doon maanaam tiimoon na ko rek loolu loolu doy nañu sëkk ginnaaw jaww ji ji ñu tiim moo tiimoon Cheikhul Khadim fii doy na weer wii ñu tiim ñu di ko gis tiimoon na ko asamaan si tiimoon na ko loolu doy na waaye ñu xam ne dañoo ñëw ziare dañoo ñëw ngir ziare ànd ak njabootu Cheikhul Khadim ci njiital Cheikh Amadou Bachir Serigne Touba ñaan ñaan goo xam ne da ko yàlla da ko koo may ba noppi mu soog koo ñaan wax ne suñ borom képp koo xam ne jóg na siyaare si ma te yàlla tax yàlla na nga ko musal te jéggal ko ay bakkaaram wax ne képp koo xam ne bëgg na ma wala mu siyaare ma na nga ko may lam bëgg te fegal ko ay bakkaar yi àdduna ak alaxira dem ba wax ci sarsaara ca gànnaar ne mboolem ñi nga xam ne dañoo jóg ngir ñëw siyaare si ma fii fi sarsaara xat xasadu la wax de sëñ bi ay baatam da koy tànn xat xasadu waxul ne ñëw nañu jaawu wala ndànk déedéet xasadu xasd ci xol lay ne xasd bérébam mooy xol loolu sëriñ bi di wax ne murid amul warta warta am genn bëgg guddul am ngërëmal yàlla ba mu koy wax baatu xasd la xasd la jëfandikoo waaw ndax ndax dafa ne lépp loo xam ne yittey murid la warta weesu am ngërëmal boromam subhanahu wa taala xaysu xasada xaysu fu mu fi jublu rek lu mën a def lam lam war a yéene ci jublu googu mooy am ngërëmal yàlla kon teewlu béréb bi xam ne ñu ngi ànd ak Serigne Touba ndax jëmmam ji ak bokkam yu baax yi mu àndal sëñ Mamor ñoom ñii ak jabootu Serigne Touba gi fi teew ñooy sëriñ Touba fii ci béréb bii mel na ne Serigne Touba dellusiwaat na tey fii fi Kabla Bisa kon teewlu ko bu baax a baax a baax sëñ Bay Jaxate nag dafa am lu waxoon ci ziyaara dafa feelu Serigne Touba ci loolu Serigne Touba waxoon ci bayit yooyu ma jàng léegi dafa ne ku bëgg daara akum ziyaara da ngay ziyaara jëf ànd jur ak jëf jur gi mooy li nga am jëf mooy li ngay joxe ci sa alal ak ci sa temps ak ci sa lépp wax ne siyaare wii weer dem jekki ay weer du may murit leer du ko mayit lëf loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax xam ne li ci nekk ci tuyaaba ak yiw bu ñu sàggan mukk ba suñu bakkan wala seytaan dina ko xañ te loolu lépp la ñu koy may may la ñu koy mën a may mooy sàmmonteeg teggin gi nga xam ne mooy ak taalibe ndax Cheikh Cheikh Mamadou Mountakha day dégg naa mu wax ne Serigne Touba bi mu waxee ne yoonu murit mi ngi ko tënk ci xam-xam bu am njariñ tënk ko ci jëf ju baax ju sell tënk ko ci al adabul mardi teggin bu ñu gërëm sa Cheikh Mountakha nee na teggin bu ñu gërëm boobu yi mag ñu baax ñu ñi na ak Serigne Touba ñoom nga xam ne dañoo déggoon Serigne Touba noonu la ko waxee bu ñu ko daan firi ñu ngi koy firi ak taalibe kon ak taalibe soo ko génnee ci yoon ba mbaa ci lislaam dara dutu fa desati mooy taarub lépp ñu ngi sant bu baax Cheikh si si si Awa Balla gi ku ne xam na ne dem na ba nekkatu fi te ku teewlu fii noonu la murit bu fi teew bu loolu nga war a yëg dem ba faddu faddu ci sag yéeg ndax bu ñu fàttalikoo fii fi kab la bi saa bayit woowu ma jàng ñaari bayit la xëy na li Sëñ Tuubaa bind bariwul eh, ndax xëy na étape la boo xam ne ak ak jaar rek la ak jaar la ci ñun lañ ci xam ñaari version yi ci am mooy ñenn ñi wax ne bi yàlla dogalee mu jógee Libreville jëm Mayumba la fi escale ñu def escale technique mu wàcc fi ñu jàll ñeneen ñu wax ne bi muy jógee Mayumba di dem Lambarane la fi def escale yooyu bu ci nekk histoire mën na koo saxal lu ci mën di xew histoire mel noonu waaye ñun la ñu yitteel ca loola ginnaaw jaar gi moom leer nañu Cheikh Mountakha sëñ Cheikh Mountakha wax ne ginnaaw jaww ji tiimoon na ko rek loolu doy nañu sëkk lañ ca war a mën a jànge nag mooy moom li mu junj ci bayit woowu dafay mel ne bi mu tolloo fii ak lu mu fi mën a def lu gàtt gàtt gàtt liggéeyal na fi yàlla ci taw tawxiid ci wéetal ko ci jaamu ko ci doyloo ko ci bàyyee ko boppam liggéeyal fi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci tagg ko ci julli ci moom ci wone ko ci màggal ko ci yëkkati ko nee na ca liggéey boobee ma def fii fi kabla bi saa muy kabla pees fi la ma suñ borom fegale noon bi nga xam ne moo jógoon di léewtoog man ba lam doon jéem dafay jéem-jéem ba mënu ca dara yemul ci ñàkk caa man dara waaye dañ koo tënk jéng koo tëj ko ba yàlla téyal ma ko ma dem liggéey sabab liggéey ba liggéey bi jeex ma delluwaat fa Tuuba loolee kon doy na sant yàlla ñu waaye ñu teewlu loolu nag xam ne sëriñ bi bi muy jaar fii ni mu ko waxee ca Galwaa faj demoon ki démb muy na wax ko maa yomba wax ne ba ma fay nekk damaa tumuranke woon damaa ñàkkoon ci zahir mm-hmm. aw ma aw ma woon kenn ku ma wettali suñu bilaat ne woon na ba muy wax allahumma ci géej gi kenn ku ne woon ci ginnaaw naa ko amiin amul woon ñoom ñoom ñooñu waa Sëñ ñu déggoon Sëñ Tuubaa lañ si si Abdoulahat délégation officielle ñëw ambassadeur bu jigéen bu dëkk bu bokk ci meene galwaay yi dëkk lambar na bokk ci nekk ambassadeur Gabon ñu présenté ko ko ne ko kii dey moo fi toogal Gabon ma nga bàyyi ko ca dëkk ba boon Sëñ Tuubaa muy Lambarana bokk ci xeetu galwaa waaye bam naan dañ koo tooñoon képp rongoñ yi wat benn lañ dafa daal di jóg bàyyi leen fa waaw dañ ko tooñoon dong de daal di daal di génn jóg dem dem bàyyi leen fa kon am na lu mu yëg am na loo te doolu ñun ñëpp moom la ñu war a yëg fii تبارك رب لي قضى الحاجة وحده فقيرا غريبا عند قلوا وبأفلي لم يويد ويت اك لم يتمران كليب من كان برومم دي سنت برومم ديكو ويتل ديكو دويلو دي واخنا يالا مبارك باركيل مو موغا خامني بماي نيك فا خيتو قلوا اك بافلي موي ما يومبا مان موم رك وحدي وحده لا واخ تي قصايدام وحدي وحده من رك اك رك bu ñu amee kenn ku leen bu ñu kenn ku ñu ñetteel alayhi wa rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabuhu fi lbahri hiina aduuru samay àndandoo ci asiru ba ci géej gi waxtu yu may wëndeelu di jëm di jaar kabla bisa di jaar mayomba di jaar lambarana di jaar fee ca Libreville ak ca matadi ndax foofu it danañ fi leeral tuuti ndax bi bi bi muy jógee Sénégal di wàcc Libreville xam nga am ñu wax ne dafa bato bi bimu mu ñëwee ba jub côté maanaam gabon yi dafa am benn incident bu am ci gaal gi ñu mujj évacuer passagers yi jaarale leen ci port bu mag bi nekk Zaïre muy Matadi te loolu yenu na maanaa ndax sëñ bi tudd na ko an saaniyam tidaahu nadbin xatidi jumlata ma laaqaytu naxwa Matadi ne na tagg rasulullahi sang bu tedd bu baax boobu bi ma koy tagg tagg yi neex ci man ak julli gi muy julli si moom ma di ko gën a jege di ko gën a bëgg di ko gën a sopp tax na ba nattu yañ ma doon teg ak coono ya ma doon toggoo ba ma tolloog matadi dama ko fàtte tagg rasulullahi moom ma ko fàtteloo wax nañu nag bi mu jógee bi bi mu jógee matadi nag jaar Pointe Noire googu war a dugg siwaat nag Gabon nag avant muy agsi fii ci Cap Lopez bato bi escale na fu ñuy wax Siti Kama Siti soriwul fii lool lool lool defe naa dëkk bu ñuy wax Gamba sax la gën a jege ci fii ci Gabon loolu am nañu ko wax am na version boo wax loolu lépp ci histoire gëstu yaa ngi ci xëy na danañ ko saxal rek waaye lu ci mën di xew ñu teewluwaat bu baax xam ne béréb bii ñu nekk ba mu jógee Mbàkke Baari soobu ci géej gi la yàlla wax ak ñoom ne leen sama jaam bii kat di al abdul xadim bokk na ci li ko li ko tax a jóg mooy bokk ci yéen boole naa leen ak moom na ngeen ko wettali bu mu wéet bu mu tumuranke saa bu demee ba noon yi nar a yëkkati loraange ju tar jëme ko ci moom feeñu leen noon yi xupp leen te tiital leen bañ delluwaat ginnaaw ñooñee nag di ñetti junniy malaayika bu dee saxaabee di ñetti téeméer ak nangam yooyee fépp fo xamne Serigne Touba teew na fa ci geejgi gi nañ fa ànd ak mom ndax taggo wu ñok mom ba ni tukki bi jexé bam delu wat ci Sénégal ñibbi ba dem démé aljana ñu ngi ànd ak mom kon lolu mako moo ko assurement lolu wax nako ci fu bare bare bare kon bërepp la bo xamne ku fi tew ku ne war nga rafet ndort bu baax a baax rawati na nak nga tew fi ànd ak njabotam gu baax gi nga xamne dara nekul seen yitte lumay tassaré ak yaatal ak top ak dundal jeexiti Cheikhul Khadim rawatina yi nga xam ne nag fii la ko def fii la ko ji te wax nañ ko barki dem sëñ sëñ Amadou Bass wax na ko ne sëñ Saliou ko wax wax na nee na Gabon la ma fa ji wala sëñ sëñ sëñ Mahmoudan la ma fa ji faw dana jeb bi faw des na ko jëli des na ko jariñoo te jàpp nañ ne bala cee kenn jariñu yéen ñi nekk fii fi Gabon yéen a ciy njëkk jariñu ba noppi kon loolu day doy na yàlla waaye nag soññ na nag ñu soññuwaat suñu bopp bu baax ci góor góorgóorlu ci ca xam ne ko am ku mel ne Serigne Touba. Mhm. ki àttan a jël Ablaye Mbaye wax nga ko léegi jël ab deram. àttan mhm. koo sànni ci géej gii. Mhm. lii océan Atlantique la. du dex du rivière du ri ak géej la. ci océan géej gi gën a mag ci àdduna bi la bokk. ñëw na fii dem na ba Amérique moo daanaka moo séparé Afrique Amérique Serigne bi àttan a jël der bi teg ko ci kaw géej gi di julli. ba mu koy def nee na boobu jàpp ma woon ne dinaa mucc sax waaye sama bakkan bii du ma jaral mukk ci àddina waxtu wi jot ma am benn gàllankoor buy tax ma man koo faat te géej gi ne fi géej gi jaamu bi yàlla dong la may jaamu yàlla dong laa kon danaa ko def ak lu ma ci mën a fekk kookee ku muy sëb sëriñ wala nga yaakaar ko sëriñ bi nee na war ngaa soññuwaat bu baax te jëlee ay bind yu leer ci tukkeem bi ak ci taxawaayam bii nga xam ne kenn ku ku ku ku ku mas a feeñ ci kaw suuf liggéeyal yàlla ku def lu mel noonu mu def amut ku koy defati ëllëg amut kon nañ ci sant yàlla bu baax te soññ ci te teewlu màggug béréb bi te xam ne lépp lu fi waay fas ñaan ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa ak barkeb liggéey bu barkeel boobu insha allahu taala da ko am ñu ngi jéglu bu baax a baax a baax di sant ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu vous êtes musulman que Dieu vous accepte vous agré vous guide vous dites ashhadu أن لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد محمد محمد محمد رسول الله رسول الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أن أن لا إله أن لا لا لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله dama ko bëgg a leeral rek lu ma fekke woon ca New York dama ànd ak Cheikh yal yàlla yokki leeram te taas ci barkeem ñu dem New York yàlla dogal am benn noir américain boo xam ni góor gu ñëw di def lii soxna def bi nga xamante ni bii nag tuub na sëriñ bi ñaanal ko ba noppi benn waaye bu xaw a xër rek daal di ne nañ may sëñ bi mu noppalu nangam nangam sëñ bi daal di tàllal loxo ni am amoor nekku na bàyyi rek nit ñi ñëw nit ñi ñëw di nuyoo di nuyoo ba ba jeex sëñ bi ni ma jeex nañu ma ne ko waaw mu ne ma dama bëgg bàyyil gars yi ñu génn yow dama laa soxla nu toog maak moom képp mu ne ma waaw xam nga waay si moom li mu doon wax sa xamu ci dara ma ne ko waay san mu ne ma ki doon wax naan sëñ bi daa sonn sonn ma waay xanaa xamoo ni yuusu mii bam mu kooka ba mu tuubee yuusuf alayhi salaam la ko tuddi mm. mu xanaa xamoo yuusu mii ñëw tuub dégg nga yokk xeetu Seydina Muhammad bi jar na ñun ñi nekk Sénégal ñun ñëpp nu jël billet ñëw pour teewe si loolu képp kon waa ji wërte wax ni damaa sonn sonnuma kon nag dama yaakaar ni sëriñ bi nag ni ko sëñ Saam ni ko sëñ Fallu doon waxee bu so léegi ak liggéey bi ak ñaan yeeg li sëñ bi doon def lépp lii su ñëw gii tey ak soxna si dugg ci lislaam bi moo moo dëgëral liggéeyub sëriñ bi loolu moo dëgëral liggéeyub sëriñ bi sëñ Cheikh Gueye mii gis nga ko dafa wax rek daal di waaye nu ñi ñëpp daanu fi mu ne daa tolloo xaw a am tolérance su mën a wax ak ñàkk mën a wax rek ñëpp la seen xol sedd sëñ bi yàlla na yàlla may fan wu gudd sëriñ Sidil Muxtaar yàlla na ko fi yàlla yàggal ku ñëw fekke lii sa xol dana sedd te da nga gën a nawaat sëñ bi ndax fii de wax waxuma la dara waaye xoolal li nu jàkkoonteel bañ dem ba ñuy dem làmbare na boo arrière nag cent vingt ans ci gannaaw téeméeri at ñaar fukki at fo foofa nu melan booba fii nu melan ak nan lañ fi mën a indee sëñ bi sax moom daal yëf yaa ngoog yàlla nañ yàlla dolli sutura amin amin amin amin